ubbeeku leen yéen bunti cosaan yi buuru ndam bi dugg si ana kan moo di buuru ndam boobu mbind yonent yi ñu ngi leen di tudde mbind mu sell mi bu dul woon mbind yooyu kon duñu mën lu dul wekku ci suñu xalaati bopp ngir jéem a xam fu nu jóge lu nu fiy def ak fan la jëm sunu mënoon a delloo si la amoon lépp te dellu gannaaw fu sore sore sore sore lool gëna a sore lu jiitu ñuy sàkk doomu aadama càkkeef gi ak sax laata biddéew yi di am kon dinañu nekk ñu fekke kàttan gi nekk ci kàddu yu jëkk yii ci mbind mu sell naan ca njalbeen ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf ci juróom fan yu tegloo la bi sàkk àddina su kéemaane rafet lool jàmm ne ñooyu xalaatal ci àddina su ñàkk sikk ñaari way dencante yu ñàkk sikk dëkk ca ànd ak yàlla séq ak moom diggante bu sell te ñàkk sikk noonu la mbir yi deme woon ca ndorte la lu xew nag ba tax mbir yi melatul noonu seen bàkkaar dogoon na seen diggante ak buuru àddina wërngal képp léegi nag dey nañu ci baatin doomu aadama nag moom mi ñu wàll bàkkaar bi borom bi amaloon na ko pexem delloosi ko ci boppam ci kaw mu bëgg ko wóolu yoonu yàlla li mu tëraloon moo di bàkkaarkat yépp a yelloo dee wante yàlla ci njubteem ak yërmandeem nangu woon na mala dee ci seen place loolu kon la yàlla tudde yoonu saraxe ngir bàkkaar xew-xew yooyu yépp dañu doon misaal pexem yàlla mi mu amoon ngir yónnee musalkat bu sell buy matal ni yoonu bàkkaar ak dee tëral noonu mu wallu bàkkaarkati bépp askan ci kaw suuf dafa war a jëkk a fay boru bàkkaaru waa àddina te daan dee lool lii moo di sasam